mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalalaat ci seen site d'information métro Dakar tey lundi 15 juin 2020 ñu leen di indil seen actualité du jour li ci gën a fës Cheikh Yérim Seck ñi nga ko convoqué fële nga xam ne moom mooy brigade de recherche def na benn sortie ci semaine bi ñu génn ñëpp yaakaar ne lool moo tax ñu daal di koy woo mais lu ci mënti am dinañ leen ko indil ci seen actualité du jour soxna Bator Thiam nekkoon soxna ci Cheikh Béthio dafa génn def déclaration daal di ne moom dafa jot ay agression yoo xam ne dañu ko ko def ci biir këram moom mi ngi nekk ki ko def mooy Serigne Saliou Thioune accompagné ak ay frère am ñëw daal nga xam ne moom mooy biir këram lépp lu ci am aussi dinañ leen ko indi ci problème boobu nga xam ne am na ci diggante soxnaay Cheikh Béthio yi ak famille bi nga xam ne depuis bi Cheikh bi daal di génnee àdduna ñi ngi koy dégg bu ñu ci toftalee yeneen xibaar yi nga xam ne xew na fi mu doon seen actualité du jour ngeen koy am ci seen site d'information Métro Dakar ñu convocation ki nga xam ne moom mooy Cheikh Yérim Seck moom nag journaliste bi daal dinañ koy convoqué fële nga xam ne moom mooy brigade recherche tey ci lundi bi à 11h moom nag benn sortie bi nga xam ne defoon na ko fële nga xam ne moom mooy 7TV loolu waral ba Cheikh Yérim Seck ñi di waa brigade recherche daal di koy woo ngir mu daal di leeral mbir moomu waa métro Dakar danañ leen toppal mbir moomu ngir xam Cheikh Yérim Seck fan lay mujjee ak brigade de recherche. soxna Batoor Thiam nekkoon soxna ci Cheikh Béthio moom daal dinay génne def déclaration moom nee kii di Serigne Saliou Thioune dafa ñëw këram daal di koy menacer aussi daal di koy def li nga xam ne moom mooy ay agression ak agressé gardien wam ne ñoom la fa fekk ki nga xam ne moom mooy soxna Batoor moom moom bi Serigne Saliou Thioune di ñëw këram ko fa waaye dafa nga xam ne moom mooy gardien wam moom la fa moom la daal di agressé daal di koy am ay njaboot yoo xam ne ñi ngi nekk ci biir këram moo tax muy woo autorité yu compétente yi ñu leen di fàttali nag ki nga xam ne moom mooy soxna Batoor Diop ànd ak yeneen soxna Cheikh Béthio yi di soxna sa Adja Saliou ak ki nga xam ne moom mooy soxna Aïda Saliou ñoom dañoo am ay problème ak ki nga xam ne moom mooy Serigne Saliou Thioune ak ay rakam depuis ba Cheikh Béthio daal yooyu nag mi ngi tukkee ci ay kër yoo xam ne Serigne bi bàyyi na ko ak ay boo xam ne Serigne bi bàyyi na ko ci ginnaawam loolu nekk litige boo xam ne na ci diggante ñi nga ne ñoom ñoo njabootu Cheikh Béthio ak ñi li nga xam mooy ñenn ci ay soxnaam ñi di waa métro Dakar aussi nit ñi ngi leen di promettre ne dinañ leen toppal mbir moom ngir xam nan la sox soxnaay Cheikh Béthio yooyu di mujjee ak ñi nga xam ne ñoom ñooy doomam yi ñu wax ci coronavirus fële nga xam ni moom mooy tribunal du travail ñu ñuy xamal ni benn juge boo xam ne nekk na fa lii di feebar bi daf ko daal di loolu nag di benn communiqué boo xam ne génnee nañ ko di annoncé ni benn juge boo xam ne dafay liggéey fële nga xam ne moom mooy tribunal du travail dafa daal di bi nga xam ne moom mooy coronavirus ñu ñuy xamal ne aussi personnes yi nga xam ne yëpp nekkoon nañ en contact ak moom maanaam jëflante nañ ak moom ci diggante bi nga xam ne testé nañ ko ci feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus daal dinañ leen jël metti leen en quarantaine keneen ko am coronavirus di benn collaborateur ki nga xam ne moom mooy Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l' intérieur kooku nag moom mooy mem membre boo xam ne dafa nekk ci biir cabinet wam moom ci boppam moom moo daal di def annonce bi daal di ni benn membre boobu boo xam ne dafa nekk ci biir cabinet am dafa am feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus ba tax moom ci boppam Aly ko mettroon en maanaam ñu daal di koy ber xool ba moom aussi ndax amul feebar bi nga xam ne moom mooy covid 19 waaye moom moom mi ngi wax ni bi ko defee test bi test bi dafa daal di négatif mu daal di ñi nga xam ne ñoom la nekk nag daal di leen wax ni moom testam dafa daal di négatif waaye benn collaborateur am nekk ci biir cabinet moom moo daal di am feebar bi nga xam ne moom mooy Covid 19. accident bu metti moom moo daal di am ci yoonu Ziguinchor bi benn bus moom moo daal di def accident bu metti ci bi mu demee ba tolloog fi nga xam ne moom mooy Kaffrine ci village bi ñu naan Saresoña foofu nag benn bus moom moo daal di def accident boo xam ne metti na daal di def cinq morts juróomi nit yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ak ay blessé yu bëri ñoo xam ne sax seen blessé dafa maanaam seen cas dafa daal di critique bus bi nag mi ngi jóge woon fi nga xam ne moom mooy garage boo maraîcher wutali fa li nga xam ne moom mooy Ziguinchor xale bi di Serigne Saliou Seck toll ci 11 ans ñu waxoon ne dafa lab fële nga xam ne moom mooy géej bu Mali bu ñi nga xam ne ñoom ñooy ay mbokkam daal dinañu nag ñi ngi wax ne ki nga xam ne moom mooy Serigne Saliou Seck dara wóoru leen ni moom mi ngi en vie wala en vie parce que ñoom dañ leen a wax ni rek dafa daal di lab fële nga xam ne moom mooy géej gi waaye gisuñu li nga xam ne moom mooy kooram ñoom nee nañ mënuñu mënaguñoo wax wala affirmer lenn loo xam ne jëm na ci ki nga xam ne moom mooy xale bi nga xam ne moom mooy Serigne Saliou Seck parce que ñoom dara wóoru leen ndax mi ngi dund wala dundagul waaye ñoom nee ñu ngi wër fi nga xam ne moom mooy hôpital yi ak morgue yi di xool ndax gisuñu kooru ki nga xam ne moom mooy Serigne Saliou Seck lu ci mënti am ñoom ñi ngi garde espoir ne dinañ gis ki nga xam ne moom mooy kooru ki nga xam ne moom mooy seen doom ji di Serigne Saliou Seck ñu daal di jeexale ak xibaar bu tiis dal ci ki nga xam ne moom mooy Mimi Touré Aminata Touré nekk président conseil économique social et environnemental moom nag ñu ñuy xamal ne kii di yaayam moom moo daal di génn àdduna démb ci dimanche bi démb ci dimanche bi lañ ko daal di annoncé annoncé ni ki nga xam ne moom mooy yaayu Mimi Touré dafa daal di génn àdduna ñu koy ñaanal yàlla xaree ko àjjana te jegal ko ay bàkkaaram voilà mbokk internet yi loolu leen leen indiloon tey ci seen revue de presse nekkoon li nga xam ni moo gënoon fës ci information yi fi jot a xew ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp seen site d'information métro Dakar ma leen di jox rendez-vous beneen yoon ak yeneen actualité